yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax ci kenn mag secret ba secret ba ngoo fonkal sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama alhamdulillahi wahda والسلامان على من لا نبي بعده هذه القصيدة المسماة بفتح الفتى في مدح المفتاح مرتبة على حروف أبجدة إلى آخره بجحل كل حرف صفحة أبيات إن شاء الله mbokki jullit yi tedd yi mbokki gox yu fasantikoo yi ñuy bàyyi xel di ñu topp seen ndongal daara Ibrahima Seck moo del seeti gannaaw bam sante yàlla ci mboolem xeeti cant yëpp di julli ci soppeb sopp yi sangub sang yi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne ab yonentu dootul ñëwti mukk ci gannaawam ku yàlla jox xam-xamu nubuwa ak risaala dootul ñëwti ci gannaawam mukk di boole nuyoo bi nga xam ne moom loonu nu yàlla boole ta mu doy nuyoo walis bépp nuyoo ñu tibbee ko sunu xol jëmee ko seen jëmm yi tedd te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ndax yàgg koo paasante comme nuyu jullit la du ko sax a sàppi mukk wala xeewi mbokk yi tey ñu am pas-pas bu sell incha ak yéene ngir faram fàcce tey ji mbokk yi tey la 11 ci weeru tubaab fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2021 bu dee ci gàddaay gi di mille quatre cent quarante deux tey jii de ñaar fukki fan ak juróom-ñett incha allahu day mel ni kon koor gi mi ngi bëgg a dem buy dem yàlla nañu fa bàyyi bi ñëwaat yàlla nañu fu fekk te yàlla nañu faj bépp jàngoro boo xam ne amoon nañ ko yàlla na ko koor gi dindi ci ñun bam seet wicc waaye bu demee itam yàlla nañu xirtal jeexat yi mu bàyyi ci ñun muy ak topp yàlla gu wér goo xam ne gu am genn sik sàkk kon tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñett atum 1442 ci gàddaay gi tolloog 2021 la 11 mai incha allahu ñu fas yéene tàmbali xasida gi nga xam ne xasida gu yàgg la ca xasida sëñ Tuubaa taalifee jëmmi Tuubaa tënkee ko xarafi abajada abajada ay xarafam moo tolloog Tuubaa Tuubaa moo tax ca Tuubaa la ko taalifee ñaar fukk la ak juróom-ñett mooy vingt-huit loolu ay secret yu bëriñ ca su ko defee xarafi abajada yi yépp abajada hawasa xataya kalamana saha fada xarasata saqasa saqasa yépp boo ko xoolee ñaar fukk ak juróom-ñett lañ te rot na ci benn aaya ci alquran mooy aaya ji di muhammadun rasulullahi wala sinama wa asidaw fu ne ñaar fukki leetar yépp boo demee ci aaya joo danga ko fekk ba aaya ji da jeex Ah, tabaarkalla si jeexantal suuratul Faatiha boo demee dañ ci fekk juróom ñaar fukk ak juróom-ñetti leetar yi yëpp may wax su ko defee sëñ bi da koo jël benn araf bu ci ne li gën a doy waar mooy juróom-ñaari bayit la ciy tëgg bu jëlee alif bi dana indi juróom-ñaari bayit yoo xam ne yëpp day boole di tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci taggin wu tumuranke xasida gu neex neex la ci ni sëriñ bi di taggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xasida kon dafiy jëm ci tagg fathil fataax fii mathil miftaax murattabatun ala hurufi abajada bi jeexli kulli xarfin safaat abiyaatin kon araf bu mu jël rek juróom-ñaari bi li ci loolu kon sëñ Tuubaa daal moo moom alquran waaye moo moom mboolem leetar yi nekk ci arab gis nga mi daal di nam defoon bu jëlee xaraf yi man yu teexa rasula da ngay gis ne ñetti bayit lay indi indiwaat beneen xaraf indi ñetti bayit léeg-léeg nga dem ci xasida goo xam ne bu ko tënkee aaya alquran par ñaari bayit la koy def xarawu ci ñaari bayit waaw nu ne bindee na ko nu ne rek bindee na ko sëñ Tuubaa di wane ne moom fépp la ma ne amul fenn fu mu lépp la ma ne kon xasida gi dana ci jàngalewaale lu mel ni histoire moo xam xotti gi ñu xotti dëndub yonente bi salaay salaam ci waxtu mu doone ndaw génn cërub seytaane bi ci nekk dellu tafaat ko ci ndigalu suñu borom mu yebal jibril mu xotti ko gis nga danañ ci yegg incha allah dana ci jàngale lu mel ni rañaanub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu kenn du sikk dana leeralaale ndax yonent bi mu rañaane gis na boromam wala gisut ko histoire boobu dana ko jàngalaale si biir waaye dana jàngalaale moom sëñ Tuubaa cofeel gi mu ëmbaloon yonent bi heure bu ne waxuma la rek yonent bi waaye bëgg naa gis sax Madina nga xam ne yonent bi la bëgg rek waaye bëgg naa gis Madina ngir soog ba fa tëdd waxuma ne sax mu dem ba gis yonent bi waaye Madina rek ak Makkatul Mukarrama heure bu ne mu ngi koy mbébét ngir bëgg ko gis loolu kon dana ko jàngalaale dana jàngalaale ay histoire waaye nag li ci gën a boo doon laajte mawduu bi ana ci lan la jëm mooy cofeel gi mu ëmbaloon yonente bi salaasam ngir bëgg koo siyaar ji fekk ci madinatu munawwara moo taxoon mu di ko tagg ngir sopp gi mu ko soppatuwaar kat tagg bu yéeme daal moom xam naa ne mi ngi ci biir xasida gi te loolu incha allah danañ ko faram-fàcce baat par baat ba mbokki taalibe bi yëpp man ci jëju ndax xasida gu yàgg la waaye xasida gu neex la xasida la goo xam ñu bëri dañ koo umpale waaye ñu bëri itam da leen a réer ndax duñ faral di ko jàng ngir xamuñ ko ci xasida yi waaye kon incha allah buñ ko leerle danañ xam xasida gi li ci nekk ci ay njëriñ ak taggin wuñ tagg yonente bi di doon tag wu neex tag wu tuurante ci koo xam ne xam na ko mu def ko ci baxru rajas muy juróom-ñaareel baxru waaye li ñuy wax lusoom maalaayal sàmm da ciy bëri lool xasida gi yëpp moom la te xoolal bi ñu ko taalifee nu mu yàggee waaye ci baax ci baax itam da cee bëri lool loolu itam danañ ci yegg si waaw ci baax bi bëri na ci lool waaw boo jàllee ba ci biit ni muy tagg yonente bi sallallahu alayhi di def lu ñuy wax ci baax waaw loolu itam bëri na ci lool incha allah kon xasida gi daal fi mu jëm buñ la ko laajee mooy tagg yonent bi salaay salaam waaye nag buñ la tagg yonent bi jullee nga ca sant yàlla nga ca wéetal yàlla nga ca sant yàlla ci wa amaa bi ni ma tarbi ko faadis yëpp mi ngi ci biir xasida gi mu ngi mel ni ku togg ceeb ñu ne la togg nga ne ceeb xam nga ne ceeb rek nga togg waaye nag ceeb ba jimbooxam ca yeneen ya koy safal sàpp yëpp mi ngi ci biir ceeb ba kon nag yow ceeb nga togg waaye nag am na yeneen yu nekk ci biir xam na buñ ne la xasida fan la jëm am salaatu ala nabi la wala sant yàlla la nekku ne loolu rek moo nekk ci biir waaye moo ci gën a feddali ko waaye am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ci biir yoo xam ne yaa ko ca def incha allah kon ma gis sëñ Tuubaa xasidaam yi yi nga xam ne salaatu ala nabi la da fekk muy tagg di fekk muy wéetal yàlla yenn yu ci nekk rek donte salaatu ala nabi la waaye yow yëpp da ko fekk ci biir ngeen mooñaale ko ci kon xasida gi xasida gu neex la incha allahu ñu fas ne leeral ko benn par benn ba mbokk yëpp man cee jëriñu te ku ci jot ngeen ñaanal seen nongol daara Ibrahima Seck mii nga xam ne mooy faral di leeral xasida sëñ Tuubaa yi sunu borom defal ko taalibe gunu nangu taalibe gunu nangu ak ngërëmal saa borom subhaanahu wa taala amee ko ci buntu sëñ Tuubaa radiyallahu anhu wa arda wanaa bi barakati amin waaye nag yokku xéwal yi ba mu gën a mën a jekku liggéeyal sëñ Tuubaa yokku xéwal yi yokku man-man yi yokku pastif bi yëpp ba mu mën a gën a jekku liggéeyal sëñ Tuubaa ndax loolu rek moo ñu fi bàyyi ci kaw suuf incha allahu bokk yi mu ne am axoosu danaa muslu billahi ci kattanug yàlla mu ne maa ngi njëkk a tàmbali mooy muslu ci kattanug yàlla baagoog moom laa leen doon wax ni ko sëñ Tuubaa misaalee mu ngi mel ne xale boo xam ne dañ koo dàq mu tiit daw ba dugg ci biir tànki yaayam wala tànki papam di làqutu ci moom kon sa saa soo waxee axoosu billahi day mel ni yàlla bu doon am tànk daw nga kott ci tànkam yi te yàlla ku kott ci tànkam yi kat xam nga de mucc nga moo tax mu a awoosu dinaa muslu billahi ci kattanug yàlla mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dane kullu amrin si baalin lam yabda'u bi bismillahi rahmaani rahim fa huwa abtar bépp mbir mu am solo mu nuy tàmbali te tàmbali ñu ko ci bismillah mbir mu day xuuj mooy barke du ci bëri ta barke kon moo tax muy indi aaj mooy di wane ne mbiram yëpp yàlla rek moo tax gis nga ba muy dem ci tukki bi moom la doon siikar inna waliya laa inna waliya laa moom la doon siikar moom la wax ne ayastaminillaahu inda jéewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawli iblis maa ngi ko daanee ci jéewal laataa may dem tam ah lu ko waral mooy yàlla mi mu doon tudd ci yaawali yaawali yaawali ci la ko yàlla wuysee ci la ko yàlla dimbale kun yaawalu yaa xadiru yaa nasir li moom ne ne innaka adal basir gis kon yàlla moo ko dimbaleel boppam fatal boppam mu ne iblis ba mu ci biir jéewal ñëpp di ko dégg te jëluma benn nganday waaw daan iblis te nag jëluma benn nganday billahi faaraxtu nasaara jéewale wa xayrihi qat an bila tanaawule nasaraan sépp ak iblis may seen jiit daan leen ci jéewal te jëluma nganday mu ni xaasi lii nag al qasidatu mooy qasida al musammaatu ga dëgguñ tuddee ga dëgguñ tuddee bi fatil fataa ci xubbeeg yàlla muy xubbi waakoon bi ñi def ko nag fii mab il mifta ci tagg yonente bay caabib yàlla muratabatun lu ñu toftalee la moom xasida gi ala xurufi ci xarafi abajada abajada ila axiri ba ci mujj ga tuddul tuddul xaraf yëpp ndax xaraf yi juróom-ñett lañ waaye xaraf bu ci ne da cay tëgg juróom-ñaari bayit moo tax mu ne nga xam ne niiw na sax ni mu tagg yonente bi tagg mu rafet yi nga fekkaat ko ci geneen xasida donte xasidaam yëpp rafet moom sëñ Tuubaa mu ne lii mooy xasida gu ñu tuddee bi fat il fata ci hubbeeg yàlla muy hubbi waa kon bi dégg nga te ku yàlla mosu ubbil magasin da ngay xool la nga ci bëgg rek da ngay xool la nga ci bëgg rek nga damaan ko ñu jox la ko waaye Sëñ Tuubaa moom nee na magasin la bëgg gis nga. moo tax ñu def ko ci tagg yonent bay caabi yàlla waaye nag ñi ngi ko toftalee mooy xaraf par xaraf la ñuy jël ci xarafi abjad yi xaraf fu ci ne juróom moo tax ne ñi ngi ko toftalee ci xarafi abjada ba ñaar fukki leetaan yi ak juróom-ñett yëpp mat waaye nag xaraf wu ci ne bépp xaraf juróom-ñaari bayit bi jeex suñ kulli harfin safhata abyatin mat loo xasida gi moo tàmbali fii mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun ilal kitaabi wal hadiisin sarafa qalbi wa qaala bi bi maxil mustafa mu ne in sarafa wëlbatinaa laxab ga lay wax nag qalbi sama baatin wa qaala bi ak sama sahir ilal kitaabi jëmee ko ci téere bi di alquran wal hadiis ak hadiis mooy xam-xam yi ci nekk yépp la ci jublu bi mat sil Moustapha ànd koog nag di tagg taggin wu rafet ki nga xam ne mooy ku ñu tànn sallallahu alayhi wa wëlbati naa sama laxabuk tagg waaye xam-xam yëpp na ngeen xam ne ci hadis laa koy jukkee ak alquran waaye nag damaa wëlbati sama lépp moo xam sama baatin moo xam sama saayir xal bii mooy baatinam xaale bii mooy saahiram nee na yëpp waaye mi wëlbatee sama laxab gépp jëm ci tagg yonent bi sallallahu alayhi nee na nag na ngeen xam na ngeen xam ne xam-xam yëpp yépp yëpp ma ngay bàyyi ko ci alquran ak hadis boo déggee noonu wëlbati naa jëm ci alquran ak hadis mooy li muy tagg yonent bi yëpp da koy génnee ci hadis ya xam-xamu hadis ya waaye di ko génnee ci xam-xamu alquran ngir du roy yàlla ci taggidu yàlla ndax yalla foo jàngee ci alquran mi ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko moo tax ma ne insarafa wëlbati naa qalbi sama baatin wa xaalibi ak sama saahir ilal kitaabi jëm ci alquran wal hadis ak hadis bi matil Mustafa ànd ko tagg kañu tànn ka muy taggin war a rafet jub mu ne alhamdu mboolem xeeti cant yee ñeent yëpp lillahi aji sax la ñeel yàlla alla si yàlla mi nga xam ne axraja nii moo ma génnee man sëñ Tuubaa min yaddi iblisa ma bàyyi ko ci loxo iblis alkasiiril fittani iblis may aji bëri ay fitna ku bëri fitna la yàlla na yàlla musal ci moom mu ne mboolem xeeti cant yee ñeent yëpp ñeel na yàlla cant gi yàlla cant boppam ci alhamdulillahi rabbil alamin bi mu sàkkee lépp mbond yëpp cant googu yàlla rek ko moom ñeewlut kenn ku dul borom bu tedd bi subhaanahu wa taala ak cant gi nga xam ne moom la cant ak jàmm te moo di nixmal habdu innahu awaabun te moo yonente yàlla ayob sama borom tagg na ko taggin wu rafet ak cant gi jaam ñi cantante seen biir te xadis nettali ko ak jaam ñi cant gi ñu cant borom bi subhaanahu wa taala te bi nee na at tahadusu bi nixmatillahi sukrun wa tarkuha kufrun wa man laa yashkurul qalil laa yashkurul kasir waaye laa yashkurun naasa ko mu ne ñeent xeeti cant yëpp boo ko golobantee day mel ne dafa am fu muy jaar waaye wiiraas yëpp day mujj rek dellu ci yàlla yëpp ñeel na yàlla yàlla mi nga xam ne man Sëñ Tuubaa moo ma génnee ma bàyyi ko ci loxo Iblis kon gis nga fu ne nii dama gudd boobu ci dëkk bi waaye mu ne yàlla ma génnee ma bàyyi ko ci loxo Iblis ndax Iblis de ku bëri ay fitna la ah mooy boole ñaar ñu bokk ndey ak baay ñiy xeex ngir alal rek mooy boole nako noonu kasaalika ñaari sëriñ yuy xuloo nako noonu gis nga ñaari sëriñ yu bañante iblis yu bari bari fitna yu bari bu xewee rek iblis bu laaj lépp lu xew ci xeeti fitna rek maanaam bu laaj bu laaj kii moo ko karee nangam seytaane moo leen roqale rek ndax mooy lépp waaw mooy loq mooy gaay mooy roqale gaay ba ci buur yi tey ak attekat yi ngaraaf yépp lu xew rek ci seen biir rek seytaane la waaw ah, moo ko def mu ne mboolem xeeti cante yi ñeent aji sax la ñeel yàlla mi nga xam ne moo ma génnee min yaddi iblis sama bàyyi ko ci loxo iblis mucc naa ci moom alkasiril fitani gis nga da koo da koo xas ndax moom daraam baaxut mu ne alkasir moom iblis moom nga xam ne mooy aji bari al fitani li nga xam ne mooy ay fitna yàlla yàlla musal ci iblis gannaaw bi ma sant yàlla nag mi ma génnee ma bàyyi ko ci loxo iblis mii nga xam ne ku bari ay fitna la mu mel ni dañ ko laaj kon foo jëm comme génn nga ci loxo iblis am ci yàlla nga jëm wala am ci keneen nga jëm wala am leneen nga jëm mu ne ilal huda ma jëm ci ak njub bi xidmatil kitaab bi ànd ku di liggéeyal téereb yàlla bii di alquran wa xidmatil muxtaar yi ak di liggéeyal yonent bi nga xam ne mooy ku ñu tànn si sawaay bi mooy borom njub ga sallallahu alayhi wa sallam mi ne bi ma santee yàlla bi ma génnee ma tàggoog iblis moom mi nga xam ne dafa bëri fitna te ku génn ci mbir war ngaa dugg ci mbir mu ne bi ma génnee ci iblis te yàlla génne ma ca damaa jëm ci ak njub njub te mooy li fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi waaye nee na biit njub googu du tere njub moom ab baat la waaye nag am na ci biit njub gi yoo xam ne war nañ ko organiser di ko lijjanti di ko defar di ko defar ba mu rafet muy ñaar muy alquran ak li fi yonent bi indi liggéeyal yonent bi mooy xaddiis yam fa bàyyi yëpp gis nga fu ne sëñ Tuubaa buñ ko doon jàngale wallaay ci li ñu xam ne yonent bi amul morom waaye ci li ñu xam ne yàlla am morom fu ne xaddiis yi wér yëpp yi fu li yëpp dajaloon na leen xoolal lu mel ni rek tey fii axbaari uh, sarair ah silkul jawahir li fi nekk ci ay hadis te lépp wér gis nga bu mu la si indi rek bu wér la seen ngay demee ci yeneen xasida yu fasantoo yoo xam ne hadis ci bi rek la ci indi lu demee ni bi muy dénk sëñ Abdourahman waaw ah, fatul manaan gis nga xadis yi fa ñëw te yëpp xadis yu wér la waaw waaye alquran moom waxaale ko moom day jël aaya par aaya di ci tëgg ay xasida nga xam ne fu ne alquran fu yàlla waxee yaa ayyuhaa llaziina wala nangam rek dina ci xasida wane na labbayka rabbi moo xam mu digle tuub wala mu digle sant wala muy digle ñaan yëpp suñ tubaab bind ci ay xasaay yu dul jeex nag la ci bind woon nga xam ne nekkul ne genn la ci bind waaye yu dul jeex la ci bind gis nga xasida bu bind na ko tafun ne li may faral di wax jamono ji ne am na xasida yoo xam ne kenn mënu leen di mool lu ko sëñ Moussa ko wax rek sa xasida kenn mëntu mool lépp fu ne jamono ngi ñëw dana am xasida yoo xam ne woy njëkk yi sax xamuñ ko woon koy dogu mool fu ne bis bu ne nga gis fu ne xasida yi mel ni sax danga naan yow lii kanaa bu ne dafa am xasida gu bay ko ci kaw asamaan di wàcc ndax bis boo gisee xasida su nga ngi xasida gu la gën a jomal gis nga mu ne ma jëm ci ak njub waaye nag ànd ko di liggéeyal alquran ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom ñax mooy borom njub ki kon dafa ñëw ngir defar njubug yonente bi sallallahu alayhi waaye di ko liggéeyee di sàmm ay xadisam di sàmm ay waxam di sàmm ay xormaan di sàmm léppam beesal yoonam bi moom yonente bi sallallahu moo tax mu ne wa xidmatul muxtaar yi sii sowaat léegi nag mu ne ahmada danaa sant ba faw man yàlla mi nga xam ne istafaahu tànn na ko alal waraa ci kaw li def yi bi xulluxin ci jukko waaw waxal ne ixtalaa yëkkatikoo na mooy kawee na rek bii ci darjaamu yonent bi si waaxu kudut moom loolu moom tàgg def def naan foofu lem mu ne ki may njëkk sant mooy yàlla mi ko taggee ci melokaanu jukk wa innaka la ala xulbiqin asiba lañ ko wax wa innaka te suñ tuwaa nee na ko waanaa si almin wa saxin wa rutbatin anil mustafa fi xulqi ay sama képp kuy borom xam-xam ak jëf ju saf yàlla ak daraja nee na lot na ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn xamut nu mu doon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ki may njëkk sant mooy yàlla mi ko tànn ci kaw mbindeef yëpp waaye nag bi mu ko tànnee mu teg ko ci kaw mbindeef dana ko wa innaka la ala kawi istixlaal la kenn mën a koo kawe ci njukk la wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan saxara nee ne koo dégg ñi ne kaw na rek ci darajaam ci la yëkkati ko moom moom yàllaa ko kaweel boppam waaye koo dégg ñi rek bu laaj topp yonent bi nga tax kawe sëñ Tuubaa lu muy kawe kawe fi yonent bi jaar la jaar moo tax mu kawe ñëpp keneen ku fi jaar itam noonu ngay jeex na tàkk dégg nga keneen ku fi jaar ngay kawe moo tax ma ne Ahmada danaa sant ba faw man yàlla mi nga xam ne istafaahu tànn na ko moom yonent bi alal waraa ci kaw mbindeef bi ku kon ci jukko waxal ne ixtilaa kawe na bii ci darja yonent bi si waaw ku dut moom koo gis mu kawe rek ci darja yonent bi ci la kawe darajatul muxtaar hi bil mursali bi ixtilaaw darajatul suli yonent yëpp seen daraja mu ngi kawe ci daraja yonent bi salaay salaam am daxuhoo danaa ko tagg ba faw gis nga xasida xasida tagg la bi mu waxee nag li ko tax a jóg ba nëppi sant yàlla mi def yonent boobu ba tax mu koy tagg si mu ne na am ndaxuhoo dinaa ko tagg ba faw bi nasri ci wisar woni saami ak wëy maa dumtu fileeg sax naa xaadiran di ajaam kattan alal kalaami ci man a wax nee na feeg daal fekku leen ñu ne ñàkk naa samam tal maadaama xaqali max ne day dul hëddiyaati Hamad Souleymane dane woon fii maa ngi ànd ak samam xel rek warlul naa ko ay bor xëd at mu ne rek ma jëmee ko ci moom ak xasida fii mu ne la danaa ko tagg ci wisar mooy lu ñuy wax sàcc ak wëy muy nasmu moo nasmu mooy loo xam ne dañ koy peese ci balaa sonro lu mel ni xasida gi ci la bim ne amdaxuhu bi nasri wa nisaami maa dumtu qaadir alal kalaami nisaami kalaami loolu mooy lusoo mala sam xasidi gi yëpp moom la man ixtada man ixtada waxalla almala euh, kitaabi sawaabi istifaawu siwaahu gis nga loolu moy lusoo mala sam xasidi gi lépp moom la moo tax mu rafet wisar nag moom boo ko du wisar mooy lu mel ni alquran waaye alquran moom du wéy di wisar waxe suñu borom la subhanahu wa lu mel ni hadis hadis nu mu amee balaaxa gis nga hadis waaw ah, xadis wax yu rafet la waaye nag nekkul loo xam ne la déedéet waaw ah, ndax yonente bi wa maa xallam naaw sahra wa maa yéen bi koy loxoo saa borom nee la wéy tax yellul sax nga di ko def ndax boo mënoon wéy ñi la yaakaar ya alquran loolu ma sikk nekku ci moo tax kon wisar mooy loo xam ne mooy loo xam ne duñ ko wutal ak daane waaw lu mel ni mafatul bisiri ca la bokk moo xadamatul xidma yëpp moom wisar la moo tax ma ne ñaar yi ci laa koy taggee bi hurmatil mustafa man si tuqaadam moo bi nas mi wa nasri sajjaxan suma miisaana rafax naa ilal mahi la si xat maa wus naa ma diyan ajiban yux julu saj al was naa jëmee naa ci yonent ay tagg yoo xam ne bu kuy sacco wala koo xam ne day wasnu wasnu day dellu ci nasmu sacco dellu ci nasru muy wisar andahu danaa ko tagg bi nasri ci wisar wa nisaami ak wëyi maa dum tu fi léeg sax naa xaadiran di ajaam kattan alal kalaam ci mën a wax fekk lottu ma daal ci wax danaa sax takk di tagg yonent bi te taggin wi yëpp ci yi wisar la yi wëy lay doon atta dikk na moom yonent bi judd ca mag ka xëy sin mel ni ki taw far tawaa taw boobu dana mandal mani tada ñi jub waaye wajaa ah moo doon cosaan waaye dañu daggaam si dikk na ba tey ca màkk ka lay sin mel ni gaynde ci weex ci man a alage fa tawaa te mu man ihtada képp ku jalgati mooy ku dëng yoonu lislaam gis nga ihtada ihtada boo ni ihtada safaana mooy ihtada mooy ku jalgati ku jàddu yoonu siraatu mustaqim ihtada mooy ku jub kocc tabarkalla mu bi gis nga taggin war rafet mu ne ni taw buy màndal xam nga taw bu tawee da ngay gis jur géppay màndal waaye ba ci sax ñi nga xam ne dañuy bay xam nañ ko waaw dañuy mën a seen jur yi dañuy mën a lekk ba suur di gën a rafet nawet lay gën a rafet nee na yonent bi nag boo ko doon misaal dafa mel ni nawet ci jullit ñu jub waaye nag boo ko doon misaal dafa mel ni noor ci yéeféer dafa mel ni noor ci ñoom gis nga wa jaaka lay sin xay sun afaada may tafaada lay sun abada adda daxeey way lii la ñuy wax ci baax nga xam ne bi mu ne attaque xay moom la ñuy wax ci baax dikk na ka xay sin mel ni ki taw fartawa boo xam ne mandal na manistada way jub xam nga taw moom day jëriñe moo tax bu mu ñëwee julit ñi la jëriñ mooy ñi bëgg a jëriñu waaye wajaa dikk na ka lay sin ba mel ni ki gaynde ci wex ci man a alage fattawaate mu alak man italaa ñi nga xam ne dañoo jalgate ñi fi doon dëng ñëpp dajee nag ñoom ci xare duma leen ba noppi alak leen ñoom ñëpp waaye nag ñi xam ne gëmoon nañ ni taw di mandal heure bu di leen jëriñ bi wa ala jumlati alihi ak ci kaw mboolem ay ñu ñoom ne bi ak saabaam yi xam ne almala dañoo doonoon mbooloo mu takku waaw ta dóoro di dóoróndoor di xàccoondoor di dóoróndoor loolu jubli ci almala boobu mu ne gën caa sell salaatu yàlla ga ci gën a sell yàlla na ko doole sotti ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ay ñu ñam ñi nga xam ne dafa bokk toog ñoom kër ah moom yonent bi nga jël ci ku mel ni Xasan ak Xuseynu ak Ali mi leen jur ak Fatima ndax yonent bi dafa mosoon jël mbàjj woo leen bi ñëw mu jël mbàjj gi muur leen na yàlla xaawulaay ahlal bayt fatarum tartiran mooy bilaay ji wàccee inama yuridullahu li yusiba ankum rijsa ahlal bayt wa turkum na yàlla ñii samay waay kër yàlla nga leen laabal wicc moo tax ne aska salaati alayhi wa ala jumlati ali wa sahbil mala gën ak julleem moom yàlla na ko sotti ko yonente bi ak mboolem waa kër ak saaba yi xam ne almala dañoo doono mbooloo mu takku ba noppi di xàccoo ndoor taraahum rukuan sujudan yabtuquuna fatlan min allahi wa ridwanan simmeehum ba ila axiril aya waaw dañoo bëggante woon waaye dañoo nuñ bëggante woon bëggante noonu lañ faraxoon ci jullit ñi tar ci ñoom bañ leen ngir seen weddi yàlla bi sëñ bi delloo tegaat ci ne billahi umin wa wàcci uslimu loxoo wa bili ihsaani sayni aqtimu nee na uminu danaa gëm billaahi yàlla ba tey wu uslimu danaa jébbal wàcc yi sama jëmm loxo ñeel yàlla wasay ni yii ñaar axtimu laay campé bil ihsaani ci ak rafetal nee bi ma amee iman am islam léegi na rafetal ki ci des rafetal damay ànd ko gëm yàlla ku mat sakk di wéyee santaane yàlla gis nga kon islam mooy pratiquer iman nag mooy gëm bu laloo sa xol rek bu ñëw rek day daal di baax waaye bu ne loo doon islam islam ah islam loo ko am taamu iman rek amul benn njëriñ fu ne jëf yëpp lu ñuy bëri bëri bu ci iman amul amul solo moo tax yéefar ñi loolu la leen julli ñi te ne gëm yàlla fu ne ñoom ñi ngi def jikkoo makaram axlaax ñi ngi def lu baax waaye seen jëf yi yëpp dafa mel ni junax wala ci na kafaroo axmaalum kasaraabin bi xiaatin yox si boo sam aanu waaye nag ñi ngi def jukkoo maka xaraa yu ñuy def yépp waaye nag ngëm yàlla ga moo tax baaxut jullit nag moom bu amee iman lu mu defati rek boo ñëwee bu tagee ko ci ko iman de day baax mu ne oomidu danaa gëm billahi yàlla bu uslimu te danaa jébbal wàcc sama jëmm yëpp loxo jëmee ko ci yàlla wasey ni yii ñaar nag axtimu laay campé mooy laay kaste bil insaan ci ak rafetal nee na su ma amee ñaari nag su ko defee lépp lu lépp lu dugati rek mooy ak rafetal mooy tasu def te yàlla tax comme am naa iman ak islam léegi nag rafetal rek def te yàlla mu ne bil mustafa lahu amut wa afuus isjanatul xuldi bihi qadan ahuus baana lana maxan bilal tibaasi kawnu bni abdillahi xayra naasi baana li jumlatil malaayika alkiram kawnu rasulullahi lil xalq al imam baana bi qawlihi bala hudaahu yowma alastu fahada siwaahu gis nga mu ne am mutu danaa muccee bil mustafa ci darajaay kañu tànn ka lahoo ñeel ko waa axus te may tuufoo ba tey ci darajaam te moom yonente bi salaay sam nee na bu may mucc ci daraja yonente bi ci lay muccee waaye bu may am li ma bëgg itam ci daraja bi is ngir janatul xuldi aljanaay biil ga danaa ko làqee bii ci daraja yonente boobu xaddal ëllëg yowmal xiyaam nee na bu ma ci daraja yonente bi ci lay tàbbi aljana waaye bu ma muccee wala may am lu may wut ba am ko itam ci daraja yonente bi aljana geesa bu mu duggee lépp ci daraja yonente bi la kon nag lépp lu muy def rek ci daraja yonente bi moo tax ne amutu danaa muccee bil Mustafa ci daraja ku ñu tànn ko lu ko ñeel ko wa axus tamay tufoo ba tey ci darjam is ngir jënatul xulli aljanay biil ga mooy tabbi fa te dootoo génn mukk nee na axus danaa ko laqtay bii ci darja yonente bi xadan ëllëg baana biir na lanaa ñeel nu maxan ñun ñëpp bilal tibaax ci luru ak lëntal kaw nëpp ni abdillahi nekkuk doomi abdillahi ji xayra naasi di gën ci nit ñi nee na ñun ñëpp leer nañu te amul lëntal amul lu kenn di lëntal li lii moom amul kenn du koy lëntal mu ne doon gi doon yonent bi salaasam doon gën ci nit ñi mooy doomi Abdullahi Abdullahi mooy woy juróom bu góor Amina say sayyidatuna Amina doon woy juróom bu jigéen mu ne loolu moom lëntal amul ci lu ñu sikki sakk wala lu ñu cee déng-déng wala lu ñu cee lëntal amul nekk gi yonent bi salaasam nekk gën ci nit ñi waaw loolu moom ñëpp la leer baana biir na li jumlatil malaayika ñeel mboolem malaayika yi alkiram malaayika yi da way tedd laa wax nag kaw nu rasulillahi nekkug yonentub yàlla bi imaam di ilimaan lil xalq ñeel mbindeef yëpp nee na malaayka yi tedd yëpp malaaykatil kiram ñoom ñëpp leer na leen ne yonent bi salaasam mooy njiital mbindeef yi ku yàlla sàkk mbindeef bu ci génn kenn malaayka yi nee na loolu leer na leen nañ waxuma la mbindeef yi rek malaayka yi yëpp leer na leen nañ daan ne baana bi xawlihi ballaa huddaahu yawma alastu fahadaa siwaahu sëñ Tuubaa nee na baana bir na bi xawli ci ak waxamum yonent bi ballaa ah kay ba yàlla ne alastu bi rabbikum qaalu balaa wax jam ko dafa leer naññi kerek da ko wax ca kaw moo ko njëkk wax moom yonent bi salaa salaam ruuxum ga moo ko njëkk wax ba yàlla dajale roo ñi mel ne angaar ak gerte mu ne alastu bi rabbikum ruuxu yonent yàlla Muhammad moo njëkk wax balaa yonent yi topp ca ñettey topp malaayika yi nit ñu baax ñëpp topp ca ak nañ ko waxantee gis nga mu ne baana bi xawlihi balaa hudaahu yow ma alastu fahada siwaahu baana bir na bi xawlihi ci ak waxam moom yonent yi balaa ah kay hudaahu njubam ga njubam ga biir na te ba mu waxee balaa boobu la jub moom nga xam ne mënatul dëng yow ma alastu ca bis ba yàlla waxee ne ndax nekk di seen borom a ah, waaw faxadaa faxadaa jubee na ci njubam ga su si waaxu kudub moom kudub yonente bi maanaam ci gu yonente bi ci nga gindeeko maanaam ku gindeeko yonente bi fa jiitoon sax ci njubam ga ci lañ gindeeko ndax njub ga moo ko njëkk a wax baatab baat baatab njub moo njëkk wax yàlla ne bu mu wàccee dinaa la jàmm lii ma digal yëpp dinaa ko def kon ku jubati moo xam yonent yi fi jiiti sax ci njubam gi moom rek lañ yor yoon ndax ulaayka li si na xadallaahu fa diiku daamu ixtari moo tax bi mu ñëwee suñu borom ko xencul ñu la fi jiitoon njub ga mooy njub googu waxoon ci yow alfir bi moo tax mu ne baana bir na bi xawli ci ak waxam moom yonent bi ballaa aaka yi xuddaahu njubam ga bir na yow ma alastu ca yow ma alastu fa xadaa jubal na si waxu ku dut moom ku dul yónente bi yónente baa la jubal moom nag yàllaa ko jubal waaye nag ku jub ku ne saa borom mu ngi la jubale ci daraja yónente bi sallallahu loolu def naa la leer وعلي وسعبي وعبلي كوني أبي بس علينا قبلي